café Touba Bagdad mooy lu bees ci wàllum café fii ci Sénégal am na qualité te wute lool ak yenn xeetu café yi ngeen di jëfandikoo li ko waral moo di jar rek lañ ko defaree. li mu tax a jóg mooy service bi nga xamante ni moom lañ Serigne Touba indi leen ba mu jugee ci tukkeem bi ci géej gi te jamono ji ñu gis ne ñu bareen koy yàq di ko rax ay mbokkam ay dugub. ba ci petit pois ñun ñu bëgg sénégalais di naan café café bu sell moo tax ñu koy sellal ci li nga xamante ni mooy originalité bi di kafe kese ak jar kese leneen dañ koy rax loolu mooy suñu liggéey mooy suñu juddu sénégalais di naan café bu baax kafe café baax Bagdad mooy kafe bu werte wóor ndaxte ay jumtukaay yu mucc ayib la àndal

asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, mbokk yi seetaan seen télévision Al Mouridiyyah te di ñu topp rek ci seen émission bii di Al Iftar euh, dellu siwaat nañu di leen nuyu di leen nuyu waaye di leen ziar ziar yi gën a màgg Eh, ci fi ñu leen daan nuyoo ci waxtu wi ñu leen daan nuyoo tamit ci seen télévision Al Mouridiyyah eh, may fàttali rek eh, ne tey la gaaw yemoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin atum 2016 waaye it tolloo ak fukki fan ak ñaar ci weeru tedd wi nga xam ne si ci la ñu nekk muy cheikh ramadan al mubarak di weeru màgg wi weeru ngëneel wi ngeen may ma rek ma jiital rek ci sama nuyoo ak ci sama ziar sunu sang bi sunu kilifa sunu wasila cheikh sidil muxtar mbàkke xalifa général kulu murit Euh, di ko ñaanal suñu borom euh, mu guddal fanam te wéral ko euh, ba liggéey bi nga xam ne si sumb na ko ci liggéey Serigne Touba bi ak yéen a jëm ci am ak fam ca bëgg a yegg lépp suñu borom may ko ak tala ko fekkee ba mu mën koo matale. waaye lépp mu ànd ko rek ak njabootu sëriñ Touba bi lépp rek te mu ànd ko ak nun mboolem taalibe yi kon niñ ko baaxoo rek di defee mbokk yi ci seen émission bii di al iftar yaakaar naa xam ngeen thématique yi wala <clears throat> ngeen baal xam ngeen léegi buntu yi nga xam ne si. Euh, ci la ñuy dugg bés bu set euh, bunt alquranu karim bunt hadis euh, bunt yu mel noonu bu ci nekk rek ñu fas yéene dugg génn ci bu ci buñ ci génnee ngeen jële ci njariñ bu baax a baax loo xam ne daana leen mën a jariñ fii jariñ leen fa nu jëm tey nag ma am bu baax mbégte di dalal rek sëriñ Basiru Ndiaye mi nga xam ne sëriñ Basiru Ndiaye min ngeen ko ci plateau As Sabah mu yàgg fee ñëw wax dëgg yàlla disponible lool Euh, saa bu nu ko woowee rek euh, mu lépp lu mu doon def euh, ñëw wuy suñu ànd ak ñun ci liggéey bi xanaa rek ma di ko nuyu sëriñ Basiru asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Modou Kébé ñoo ngi lay nuyu télé ziar tey nuyu sama mbokkum taalib mi sëriñ Xadim Gueye te jiital ci nuyu bi ak ziar bi sëriñ Sidi Mokhtar ñu sunu borom teg tey ci yoonu murit di ñaan sunu subhaanahu wa taala yàggal ko fi la te mee ko wér te mee ko ndam ci liggéey bi ñu liggéeyal sëriñ Tuubaa maam te di Muhammadu Rasulullah dëgg suñu borom subhanahu wa taala amiin yaa rabbal jërëjëf Serigne Bassirou Ndiaye moo feggoo rek ak tey ak Serigne euh, Alioune Guèye mi nga xam ne si moo fi wutu tey Serigne Lamine Diouf mi nekk ci yeneen liggéey Serigne Alioune asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mm-hmm. Serigne Mor Kébé ñu ngi lay delloo nuyoo di la mm-hmm. ziyaare mm-hmm. Euh, ni ñu ko baaxoo defee rek suñu nuyoo ak suñu ziyaare ñu koy tàmbalee ci suñu sang bu tedd bi ak Cheikh Sidé Mokhtar Mbacké di ñaan mu yàgg fi lool ànd ak wér ak mboolem jabatu ak mboolem kilifa yi diine yëpp di ziare itam Serigne Bassirou Ndiaye ak mbokki talibé ak mboolem ñuy seetaan seen télévision Al Mouridiyyah eh, dëgg la eh, am solo yoo xam ne suñu ñaari gan yooyu eh, yónnee ko ni ñu def rek mbokk yi ni ñu ko baaxoo def ci seen émission bi nga xam ne mooy Al Iftar wax naa ko léegi ay buntu yoo xam ne si daa ci fëgg dugg ci bu ci nekk ñu génn ci fas yéene génn ak njëriñ buntu ba ci njëkk di buntu alquranul karim Serigne Basiru dana leen indil ay ayat alxuraan jàngal leen ko waaye it firil leen ko ba ngeen mën cee eh, jële njëriñ suñu paree ci loolu daañu ñëw ci ñaareel bunt bi mooy doon buntub hadisu bés bi bu ñu paree ci loolu daañu leen ñëwal ci li nga xam ne si mooy ndogu Tuuba démb ñu nekkoon fële nga xam ne mooy pencum Sëriñ Amsa Mbàkke Euh, bu ñu paree ci kon ndogu Touba boobu euh, mooy doon premier extrait bi rek bu ñu paree ci loolu daa ñu ñëwaat ak suñu gan gi indil leen li nga xam ne mooy ñeenteelu bunt bi di doon buntu ba xikma suñu paree ci bunt ba xikma bi ñu leen indilaat euh, beneen extrait ci seen ndogu Touba bi bu ñu paree doog leen a indil nag li nga xam ne mooy seen grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba yële ñu war a dafa fële ci dakaar tey ñu nar ci dalal Sëriñ Xaadim Faye mi nga xam ne si mooy secrétaire général bu daayira eh, eh, xaatimatul munajaati ak tamit eh, sëriñ Modou Ndiaye moom mooy coordonnateur boobu daayira di xaatimatul munajaati ñu jóge ba fële ca Ndakaaru rek ñëw ngir wax ñu li nga xam ne si mooy waaj yi nga xam ne si ñu ngi koy waaj ak foofee ca gox ba nga xam ne si mooy caaro ak mboolem daayira yi nga xam ne si ñoo nekk foofu mobilisation bu mag bi nga xam ne si ñu ngi koy def bëgg rek bés ba bu ñëwee euh, kenn du dem euh, ñu des bu ñu paree ci loolu daa ñu dugg nag ci li nga xam ne mooy bunt bi ndar képp nag suñu émission mooy bunt bi mujj ci émission bi mooy doon xas rek bés bi kon mbokk yi ni ñu def rek dañu ànd bunt bi njëkk mooy doon buntub alquranul karim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 Euh, rek euh, ñu nara rek jàkkaarloo ak sunu gan gi di Serigne Bassirou Ndiaye euh, Serigne Bassirou yan ayati alxuraan nga ñu indil tey ak aaya yooyu nga ñu indil lan la bëgg a wax ahoudu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim ya ayuha annabi isa talaqtum annisa fa talaquhunna li addatin waxsul addata wattaqullaha rabbakum laa taxrujuhunna min buyutihinna wala yaxrujna ila an yatina bi faxishatin mubayana wa tilka xuduud allahi wa man yataadda xuduud allahi faqad zalama nafsahu la tadri laalla allaha yaxdisu baada zalika amra sadaqallahu asim sëriñ bii mooy sóorut mooy bopp sóorut talaax wax nañ ne lii saw bu nusul mooy eh, sayduna eh, abdullahi ibnu omar moo bàyyi woon soxnaam bi mu ko bàyyi fekk ma ko bàyyi ci jamono joo xam soxna si daa nekk ci li ñuy wax am póot daa nekk di gis dara mm-hmm. bi mu ko defee mu ko waxee omar omar di ko wax ko rasul sallallahu alayhi xama ko ne ko Abdoulaye bàyyi na do soxnaam te mu koy bàyyi ma nga ma nga toll si barab bi ba mu ko defee yonent bi salaa sallam mer sa lool ci bàyyi gi mu ko bàyyi bàyyi ko ci woo waxtu suñu borom nag wàcc aay bi di leeral nan nan lañ war a bàyyee jigéen maanaam tase ci nan lañ ko defee mu ne ko yow yonent bi am na sax wax benn riwaay bu wax ne yonent bi moo bàyyi woon soxnaam suñu Xafsa Xafsa doomu Omar la bi mu ko bàyyee suñu borom xamal yonent bi ne ko ne ko jëliwaat ndax xabsa kat soxnaan la ci àdduna soxnaam la sa aljana wax nañ ne waaw suñu borom wax ne yow yonent bi yaa ayuha nabiyu isaa talaqtumu nisaa fa tariquhunna li jigéen na ngeen ko bàyyi ci addaam xadda nag ñu ne ab ko laajee ne ko lan lañ ci jublu mu ne mooy ak laab maanaam buñ dee bàyyiti jigéen nit ki doon na bu meree bëgg a bàyyi jigéen mere na ko wala am na lu ko naqar rek day xeexee bàyyi ko suy bàyyi jigéen gi da ko war a bàyyi ci ay conditions yu leer ba si njëkk moom na ko bàyyi ci ak laab maanaam jigéen gi gisu dara te bi laab googu ma koy bàyyi na fekk te bu ko bàyyee ba noppi laa tuxrujuhunna min buyutihinna bu leen leen génne seeni néeg ñoom itam wala yaxruj na ñoom itam lu ñu mer buñ génn maanaam kon Sénégal ni ñuy pase muy passé jigéen tey tey mhm. ni ko génnal kër gi tey tey yaa fi bàyyi sa bopp wala nga woote woo ay mbokkam ni ñuy jëlee ay bagaasam mhm. alxuraan koy aay mhm. da xam jigéen buñ ko bàyyee nañ ko bàyyi si biir néegam ba wax doom jeex daal si gàttal ñetti weer ci gàttal ndax am donte idée dafa bëri nag am na idée sax at ñoom itam nag buñ génn li ñu indi faaxisha mu bayyana muy eh, saay-saay gu bir muy lu mel ni mu nekk si kër gi trouble wala boog mu nekk di fi indi ay góor wala mu def lu jaaduwut bu kerogee nag nañ ko génne hmm. waaye suñ koy génne tamit nañ ko génne ci indi ka fa nekkal yoon mu wut ay seere mu doog a génn mu ne loolu nag laa tadri man yow dee xamoo hmm. la xalallaaha mën naa am yàlla sax day yoxdisu baada zalika amra mën hmm. naa am toog gi muy toog ci biir kër gi sunu borom am lu ci amal maanaam da ngeen si jógewaat xam nga soxna sang si kër gi mm-hmm. yaa ngi koy gis mm-hmm. Mm-hmm. tàggoo ngeen waaye mën naa ma ngi toilette ma ngi dama ko dikk mën naa bu yàgg kii <laughs> yëpp waaw moo tax yàlla bëgg soxna si mu des si kër gi mën naa am comme newante ngeen boo xëyee si ba nga xëy si ba dem sa waañ nga tàng sa café naan uh-huh. añ jot nga yónnee kër bay diw ñu yekkal sa añ uh-huh. eh, reer jot nga dem kër bay diw ma ngi si kër gi bu yàggee nga xam ne li nga def jógut uh-huh. nga jëlaat ko kon loolu la su noonu nag su idda ji jeexee nag soo koy téye téye ko si njëkk soo koy bàyyi bàyyi ko ci njëkk fa imsaakun bi maarufin aw tasriixin bi ihsaan maanaam bu bu bu bu boo koy téye téye ko ci njëkk soo koy bàyyi na nga rafetal maanaam ko bàyyi mu rafet wut lu ko yóbbu te téye ko ñetti weer yi ñu wax ñetti weer matee buy dema dem loolu loolu moo doon ay yi nga xamante nii maanaam ci mbirum passé wax mu wuuteeg pasay sunu jamono ji waaw muy pasam biddaa yi am léegi waaw parce foofu laa jëmoon euh, boo xoolee Sénégal léegi daanaka ñun euh, dañoo mel ne comme li may faral di wax rek dañoo yor suñu islam mhm. bopp yor suñu diine bopp yor suñu doxalin bopp yoo xam ne si te moo ne réewu jullit la ñuy tuddoo mhm. waaye li nga xam ne loolu alxuraan digle amu ci lan ko defee na ko alxuraan waxee mhm. euh, comme li nga wax bu ñu fasee jigéen ñaare dañ naan Euh, suñu borom bu euh, bu ne su ngeen ko fasee ba pare ngeen bàyyiwaat ko ci kër gi alal hmm. googu mu ci mu ci mu ko ñu koy bàyyi ci kër gi hmm. wax nga léegi ne euh, pour xëy na ngeen mën a defaroo waat wala yu demee noonu hmm. loolu da nekk dafa nekk loo xam ne si lu am solo la yaakaar naa kenn ku nekk war ci war ci bàyyi xel waaye ab soññ rek sëñ ñi nga xam ne si dañuy fase soxna waaye léeg-léeg ni ñu koy fase day ñaaw trop trop trop daal waaw am na sax foofu lu ma si bëgg wax mooy jigéen ku ko fase ñetti weer yaa ko war a dundal ñetti weer yi ñetti weer yi ñu yëddewu su fekkee ne ku yëdd ñetti weer la su fekkee ne ku ëmb na même boo ko génnee même bu génnoon hmm. su fekkee ne ku toll diggante la ba ko war a yaa ko yaa ko war a dundal hmm. dañ koy yëddewoo at la sax a hmm. a a mu mu ne dafa jàngale gis nag jigéen kenn bu ñu ko bàyyee paas yi mu sax ñun ñoo fa nekkoon taalibe Sëriñ Tuubaa ñoo dajaloo pour wutal ko lu mu paasee pour ñibbi mu ànd ak ñetti doomam te nag loolu euh, dafa dafa xaraam mm-hmm. maanaam tooñ jigéen dafa dafa dafa dafa dafa xaraam mm-hmm. ci bàgg ci xikma bi mm-hmm. dana ko leeral kon li nga xam ismaan suñu ismail bopp suñu islam bopp lañ yor parce que islam du lu ñu teg ci xol wala xel xol di xol moom du doxee du kenn ko doxal ci islam kenn du ko doxal ci xel kon nañ koy mabni ala naqli la ala munasabatin xaqli la sayidna euh, ki waxoon du lu ñu teg ci xel hmm. waaye nañ ko teg ci tuxal ci xam-xam dëgg la nañ ko teg ci xam-xam mu nekk lu am solo sëñ Ali euh, li xam ne si aaya bi nga xam ne moom moom la indi muy sóortu talaax euh, sa saar wi ak euh, bopp aaya bi nga xam ne si ci fase lay wax li tax ñu gën ko indi sax mooy ni ñu seetloo Sénégal fase ni mu fi amee ak ni mu ñaawee nga xam ne si daanaka amu ci lenn loo xam ne si danañ ko teg ci diine danañ ko teg ci règle yi nga xam ne moom la islam tegoon suñu façon doxalin bopp rek ak suñu mer surtout moom la ñuy faral di topp bu ñuy bu ñuy fase hmm, jërëjëf sëñ Modou Kébé hmm. di sant itam Serigne Bassirou Ndiaye mhm. ci jàngale bi nga xam ne jot na ko indi mhm. mu jëm ci wàllu diggante borom kër ak soxnaam ah. waaye mu jël ci benn tomb boo xam ni mhm. moom mooy fas ah. li nga xam ni dina ko ci jàngat rek mooy eh, ab sëy ñi xam dañuy wax ni daanaka mën nañoo wax ni li ko fas fas ko maanaam li ko takk tikku ko waaw te buñ koy takk mhm. di ko fas dañ koy yoonal dañ koy yoonal waaw dem ci jàkka mhm. imam ju xam ak ay seere mhm. can gi ak sart yi yëpp ñu tënk ba mat